kuy sàmm ndigalu yàlla dinga sax ci moom mu dëkk ci yow te xel mi mu jox moo nuy xamal ne dëkk na ci nun